Ndiaye jërë ngeen jëf ba tóor gay matamoon da mel coow la ko ci toppe woon lu ni toll topp na Idrissa Seck jamono ji journal Les Échos di ko findeel ci xëtam mu njëkk ba dañuy wax ne moom Idrissa Seck conférence de presse bu defoon keroog ak la mu ca wax tax na waa kër Macky Sall mayetuñ ko jàmm jamono ji ca conseil économique social ak environnemental gi mu jiite yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne am na fa lupp fanweeri conseil yu fa nekk yoo xam ne li ñu bëgg mooy Macky Sall jëlee conseil économique social ak environnemental ci loxo Idrissa Seck jox ko keneen Walf Quotidien nañu l'honorable député maître Oumar moom li mu gis moo di Idrissa Seck dafa manqué courtoisie gis na ne tàmbali naa tëb la gën a jege ci di wéy di fa des Abdoulaye Diouf Sarr ci xët mu mu fay wax ne muy Idrissa Seck di ministre yi partem bi am ci biir gouvernement bi ñoom ñëpp a war a dajale seen i dem seen yoon journal L'Info nañu idi gaañi ñoo ngi koy jañax wax di ko ba mu wax ngir mu génn loolee ginnaaw génn gi mu fi génnoon ak kàddu yu mu yëkkati woon ne candidat lay doon ci élection présidentielle 2024 yi ak li mu wax ci troisième candidature bu Macky Sall bi tribune di xamal ne Bassirou Diomaye Faye bu parti Pastef bi ñu téye ca yoon Idrissa Seck demoon na ca njagañaaw ga mu dëkk demoon seeti mbokki Bassirou Diomaye Faye ba yëkkati fa ñaari millions ak genn wàll may leen digle nit ne seen doom yi ci loxoy di Bassirou Diomaye Faye dinañu ko libéré lundi de vérité mu député yu pur yi ñuy toppee fitna ju ñu jëme ci kaw député Amy Ndiaye mu di député Massata Samb ak député Mamadou Niang ñoom it yéenekaay bi ngi ñuy xamal ne seen procès en appel tey la ci bésub tey bi yoon wooluwaat Mame Mbaye Niang ak Ousmane ngir walee na attewaat enquête yéenekaay nañu am na ci ay saay-saay yu ci bëggoon rax jaare ca nasoon seeni pexe ngir amalub attentat ci dëkk bi waaye alkaati sûreté urbaine yi gàntal nañu seeni pexe l'observateur kenn ki ab marabu la am na ci benn tailleur am na ci benn commerçant am na ci benn menuisier aluminium ñoom ñëpp ñoo ngi ñu garde à waa sûreté urbaine ñoo leen daaneel ca Malika enquête dina kay nañu ñoo ngi wax ne li ñu bëggoon ca cocktail molotov moo di attaqué ci train express régional bi ak ay magasin yu Auchan Abdoulaye Sow di responsable bu APR ca Kër Massar di ñaawlu ci xët mu njëkk journal Tribune opposant yi recruté ay jeunes di leen wàcciloo mi ngir ñuy xeex tàllaw réew mi xamal ne loo yàq ci réew mi rek sa bopp nga ko yàqal Ousmane Sonko mi war a dem tey jii yoon moom ak Mame Mbaye Niang ci procès en appel Abdoulaye Sow nee na li xel mënuta nango moo di nit ku taxaw ne dafa bëgg jiite réew mi bu nuppi joxul justice bi ci réew mi benn cër bu ko justice bi wooloo mu lànk kandaarane du dem nekkewu fi dara lu dul di yàq dara nit ñi baax yi ci réew mi ginnaaw Abdoulaye Wade ak m Vox Populi nee na ñu nekk troisième candidature l'observateur nañu kuréel googe F24 la tudd tribune jànge ca ne opposition bi ci réew mi bokk nañu booloo taxaw ngir jàmmanloo ak Macky Sall bés bi le jour bi ne F24 wutu na m ñi ko sos fas nañu yéene amal manifestation bu mag fukki fan ak ñaar ci weeru mai troisième candidature bu Macky Sall bi la ñuy bañ mu jëm kaw nee na ñu li leen tax di xeex bokk na ci bëgg ñu jële ci code électoral bi article 29 article 30 ak article 51 bëgg na ñit ñu jële fi parrainage bi Mohamed ko gërëm ak yéen ñi doon teewlu xibaaru man Sonko delluwaat da cee am ci diggante bi tey ci kanamu tribunal ci wàllu appel euh, fàttali ne procureur ak moom Mame Mbaye Niang yëpp ñoo def appel waral sumbaat gi tey ji ci kanamu tribunal ñu fàttali ni suba bu njëkk ba euh, ñaari weeru kaso yum dul tëdd lañ ko tegoon nepp daan moom jiitu Pastef ak ñaari téeméeri million ne alamaan xibaar yi bokk na ci te fukki fan juróom ñaari ci weeru avril tey jile euh, atte beneen ci wàllu appel ñeel ñaari député yu pur yi Massa Massata Somb ak Mamadou Niang ñoom it ci bu njëkk ba juróom benn weeri kaso leen teg ni daan waral seen wu nekk ci kaso bi jamono yi xibaar yi bokk na ci ay membre yu social économique social environnemental o bokk ci réew mi ci ne ci nguur gi ku ci mel ni Yankhoba Diattara yore sport ak am euh, euh, sëñ euh, Salé Diop ngeen baal ma yore càmm gi li ko waral di ñoom Idrissa Seck mi xam le ni candidat lay doon te ñoom dañoo jàpp ne ba fii militant à la base yu coalition bi kenn la ñu gis ne daal mooy seen mbër ci jar ko di Macky Sall ci communiqué lañu ko xam ne jamono yu waa parti réew mi kilifa ci ñoom di vice président ba Abdoulaye Ndoye moom leeral ni euh, président Idrissa Seck ba fii mooy mbër benn bu yëglu euh, bu euh, Benno Bokk Yaakaar mu ngi ko xamle ca ndar jamono yu doon rafetlu it palam ci biir parti bi di réew mi ñu teewlu ko Abdoulaye Ndoye ak Ousseynou Diop. su ma nomee ndar gi yëpp lu ñu nomee mais nag dañu sas pour ñu liggéey joxuñu ñu pour ñu toog pour ñu yoon jox loolu nag mooy tey nag lañ ñu gën a sas. benn boobu nag génneegul candidat waaye nag jël na responsabilité nii moom naka jekk dafa mas a nekk pré candidat ci présidentielle yi fi jiitu yëpp te loolu mun nañ comprendre kon mu ñàkk a présenté wu nee na moom gisul loolu fu mën a fu mën a amee. kon ci biir loolu nag suñ ci boolee ni euh, bennoo dafa war a àndi candidat kon dañu war a boole ni ñaar yooyu. mooy moom candidat la ci candidature Benno su seyoon tey waa Benno yëpp ànd tey jàppale ko ci candidature bi teg si juuti nag mooy président Macky Sall d'autant plus que nag leeral na ni suñu xoolee en tout cas constitution bi te la nga xam ne jàngat bi ci ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci constitution wane na ni kon moom warut a bokk ci bii di ñëw wanaan tam tam ni président Macky Sall liggéey na fi loo xam ne beneen président tam liggéeyu ko fi loolu moom fàtte naa ko leeral na ko baax a baax mouvement M24 juddu na M24 di mouvement des forces vives du Sénégal démb lañ ko daal di lancé ñoom la leen gën a tax a jóg mooy xeex ba njiitu réew mi Macky Sall ñu ne du sampaat euh, ndënd ngir troisième candidature ci weneen wàll ñaaw lu ñu ne jàpp gi ñuy jàpp ñeel ñenn ci ay acteurs politiques Ibrahima jàmmee téeméer ak fukk ak ñaari mbootaay lañu muy ay parti politique ak ay organisation société civile ñoom ñëpp joxante loxo ngir nag daal di taxawal mouvement bi ñuy duppee F24 mouvement des forces vives du Sénégal Mouhamadou Mbodj coordonnateur du mouvement. téeméeri organisation ak fukk ak ñaar. ñoom ñoo déggoo tey jii fas yéene dundal cadre boobu nga xam ne cadre unité la boo xam ne dafa boole nit ñi pour ñu ànd am mission yoo xam ne ni la tëddee bi ci jëkk mooy ñu fexe ba sénégalais yi jóg taxaw tegu ci dëgg fexe ba Macky Sall xam ne ñun kat li ñu bëgg ci moom mooy mu sàmm kàddoom te bañ a jalgati sart réew mi ngir nag taxaw tembe waa F24 daj nañ ndaje ci fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi ñu dégmal ngir sénégalais yépp jóg xeex li di troisième candidature ak lépp lu ñu jàpp ne jaaduwul te nguuru Macky Sall di koy doxalee. le 12 mai bëgg nañu sénégalais yépp taxaw ñu def benn manifestation bu mag a mag woon Macky ne li mu nekkee d'accorduñ ci bu mu nekk troisième candidat bëgg nañ ay élections yu bëgg nañ mu di yi li nga xam ne daal mooy jëmale Sénégal kanam loolu yëpp ñëpp jóg ci ñu juboo ci def ko ni mu gën a rafetee ni mu gën a jekkee pour Sénégal jëm kanam. ñu bëgg itam li nga xam ne mooy article yi ñu teg ko ci code bi muy l muy l ak yeneen yi nga xam ne dafay gàllankoor te gàllankoor na ba pare yoo xam ne ay candidat lañu mënoon nekk te mu gàllankoor leen ak ñi nga xam ne mën na leen gàllankoor ak ñi nga xam ne mooy euh, parrainage bi. ñu tege ko teg ko fële ndax ñëpp ñi nga xam ne war nañoo bokk ñu bokk ci élection yi. daanaka kilifa yi société civile yëpp ak njiitalu parti opposition bi teew nañu ci ndaje bile ngir rek jàmmarloog kii di président Macky Sall ak nguuram Aminata Touré Aïda Mbodj Siré Sy Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen ñëw nañ xaatim kayit bi pare nag pour xeex ak nguuru Macky Sall. jërëjëf Ibrahima Diame. bisimilah. ñu tàmbali ak euh, génération foot bi amaat ndam ci euh, championnat Sénégal bi dafa dalal démb sa déni équipe bu stade Mbour bu noppi tëcc ko ñetti bal si dara ndam boobu tax ba fi mu toll nii génération foot moo nekk ñaareel bi place topp si waa jàmbaar yi ba jongante ba jeexee ka leen di tàggat di Balla Jiba na baat yu mu yëkki jàngat ni xale yi wane ci terrain ba foofu. secret match bi mooy dañ ko teel a dugal rek jël trois points yi suñu kër comme ni ñu ko waxee dañ bëgg jëlaat suñu terrain def ko suñu moomeel. ku fi ñëw daal war nañ laa mën a jox say teranga après nga ñibbee ak moom. di rafetlu victoire bi rek di ci kontaan aussi euh, di féliciter joueurs yi di encourager waa Stade de Mbour tamit euh, jàngat bi mooy ñun comme ni ñu ko waxee depuis début saison dañoo manqué woon ay points il fallait ñu jël leen tey points yooyu la ñu nekk di jël euh, ak Stade de Mbour nag yaakaar match bu bu jafe la parce que Stade de Mbour des fois daf fi doon ñëw di fi am ay match nul donc tey nag yàlla may ñu ndam ci kawam. jàng rafet rek rafetlu rek di encore di féliciter samay joueurs. si jongante beneen euh, Diourbel euh, nag euh, foofu Sonacos moom moo fa dalal ba noppi dóor waa SNEIPS excellence yi ñetti ball si benn Diourbel waaye nag daal di am ndam bu tax ñu gën a mën a xaw a sori tuuti pàcc bu gën a dangereuse si li nga xam ne moom moo di classement bi si Ndar beneen bu nekk si suuf mooy Linguère moom itam ma ngay wéy di am ay jafe-jafe ndax waa Pikine ñoo leen fekk fa ba noppi door leen benn balle si dara ci stade municipal bu parcel Assainies di parc bu bees foofu nag douane ak waa géej waaye Guédiawaye doonu fa tembo loolu tax na ba entraîneur ub euh, équipe bu Guédiawaye bi di Souleymane Diallo yëkkati ay kàddu ni daal am na lu mu war a jooyante ngir fexeendi ba journée bi di ñëw xale mi am ndam ndax gudduñ toll nii waratuñoo ñàkk ay poñ ci yoon wi Souleymane Diallo la ñuy déglu. bon d' abord maa ngi sant euh, di gërëm xale yi match bu ñu tey c' est vrai que ñàkk nañ poñ mais euh, gis naa ni match bi sorewul si match yu baax yu ñu jot a def mais aussi en face adversaire yu permettre ñu ñu mën a jouer suñu jeu. mais l'un dans l'autre dinañ jàngat effectivement journée bi pour mën a waajal euh, journée euh, prochaine sauf que journée prochaine dafa am particularité particularité moo am contrainte parce que dañuy dem euh, fii ba Casamance pour jouer coupe probablement je sais qu'ils vont programmer mais du xaw a sori ak ak match boobu mais lu wóor te wóor ñun dinañ góorgóorlu pour participer suñ manière suñ nuñ ko bëggee si fête boobu parce que effectivement il faut Sénégal tamit moo commencé am ay derby donc derby Jeejowaay Pikine ñun ñoo war nañ ko mën a rendre euh, vraiment pour jaay spectacle football sénégalais. si programme bi nag euh, ëllëg ci talaata ji dinañu amal euh, jongante bu mujj bi dafay dox diggante Dakar Sacré-Cœur ak waa euh, Casa Sport léegi nag si championnat bi ñu ko xoolee jàmbaar moo nekk ci kaw am na fanweer ak ñeenti poñ génération foot moo sa topp fanweer ak ñaar ci poñ Guédiawaye moo nekk si ñetteel bi place ci suuf Linguère ak Excellence ñoom ñaar ñoo nekk ci mbaba daara ga si championnat bi tam <clears throat> am na ay coppite yu bees ci équipe bu Teungueth FC ndax dañ leen dooroon ci championnat bi jàmbaar moo leen daanoon samedi ñaari bal si benn taxoon maanaam ba kilifay jël dogal teg ci ndombal tànk képp ku fa nekkoon ci staff technique ba lu ko tàmbalee ci entraîneur ba ba ci këcco doon a waajal góol ya nee nañu léegi nag fal nañu entraîneur bees Cheikh Gueye la tudd moom nekkoon na fi entraîneur Guédiawaye nekkoon na fi tam entraîneur bu Stade de Mbour moom nag lisa euh, lijaas euh, entraîneur mi moo ngi ko jëlee ci école espagnole ba foofu lañ ko tàggatee mu ñëw moom nag euh, daal liñ ko sas ci objectif mooy mu fexeendi ba yéegalaat équipe bi gën ko dolli kattan si wàllub euh, Ligue 2 bu Sénégal nag demb Demba Diop moom moo daan euh, Mbour euh, Petite Côte ñaar si dara HLM jamono Fatick dañoo tëwoo ku ne am benn set ak morom Wakaam ak Port but amu ca dañoo témbo Njàmbur dalal ba noppi dóor amitié benn bal si dara ñu ne nag tey dinañu ko yàggali Kër Madior mooy joué ak waa AGEL Oslo ak waa Dakar Université Club ñoom daanu amal seeni jongante ca réewu Espagne nag jàppale ni démb Barça dafa daal di ak waa Reta à fait ndam demul ndam dikkul Barça moo jiitu ba am na juróom poñ yu euh, rawee Real de Madrid bi topp si moom Atlético Madrid moo ñetteel bi dafa daal di daan Almeria ñaari bal si euh, benn ñu daal di koy jeexale ak wàllu basketball si bak daal na rek euh, jongante ba noppi daan UGB 52 48 si jigéen ñi nag jàppale ni Flying Star moom moom moo am ndam ci UCAD da ko daal di rek daan ñetti poñ la ko rawee 54 51 ci Euh, basketball Adjasane. si si Ligue 1 Sénégal bi fi mu toll nii bu yemoon fii. Uh-huh. man ak yow dañu ànd dem Ligue 2. maanaam ma ak yow. Hmm. de. man ak yow mooy. ah yow Cneps excellence man Linguère. ok dañuy wàcc. ñu ko ñoo jël mbàbb daara fi mu toll nii. <laughs> waaye naa wax waay. foo nu seet lu ñu def ma yow ba dem suqali suñu équipe yi. waaw ñu dellu ci région yi laaj équipe bi. waaw oh, laaj équipe bi kay. loolu bëgg nekk entraîneur wala président. maire. maire dëkk ba am nga fu mu <laughs> ñu des ak sport gi Malal Junior Diagne ñu koy gërëm Oumar Mbow la ñuy àndal bi yoon ak koor gi terewul mbëri entraîné danoo daal di changé heure bi maanaam <laughs> guddi lañ daa nelaw léegi bëccëg lay nelaw ñoom mbëri <laughs> xam nga nag macha allah ñoom danoo uh, am doole ca uh, mën a xeex donc ñu ngi ci salle de sport yi guddi gi uh, reportage Oumar Mbow. damaa jóge si combat bu rëy. ay mbër yu takku la fekk ci bile salle de sport 11h ci guddi bu passé moo jot heure ci seeni kaw lal la leen doon fekk ñu tëdd. 22 heures pile laa fi ñëw. il est minuit presque te dese nañu ay deux séries trois séries yooyu. koor gi ñëw. tax nag ñu soppi seen i doxalin na. si koor gi benn séance laay àndal na ko waa ndax dañuy damay woor ko waa ñu may àndal dañuy woor. ñëpp nekk ay ndaw am taxawaay ak it bari doole lool. instant yi ñu ngi toll si nii